Moustapha ne loolu nag ak cofeel la ne cant googu kat Mbakke la la waroon jiite waaye xel day fattu ne dafa def lépp ci Touba rek ak borom Touba rek def nga lu ko gënal ne te te ba léegi yaay borom Touba lépp lu waay tudd ci Serigne Touba neex na Cheikh Ahmadou Mountakha gis nga bu sañoon du sol mbaxanaam mi magam yi fi nekkoon bëggoon nañu yàgg fi lool waaye muy Serigne Touba. billahi rahmaani rahim. alhamdulillahi rabbil alamin mudabbiri al-umuri wal xalaa'iqi ajmain wa huwa al-qaa'ilu fi muxkami tanzilihi allahu aclamu xaysu yajcalu risaalaatihi wassalaatu wassalaamu ala sayidina muhammadin safwati bani adnan wa ala alihi ahli al-ihsaan wa radiyallahu an baqiyati salaf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 أضاحي في إخدام خير الورى بدا وفي كل شهر زيد ربحي وفي صفر